D'abord, je euh, suis ma à la famille famille bi di toute la famille socialiste di jaale Diaté Dieng Ndiaga Dieng Mampenda ak à Ndiaye bi ne seen donc euh, di wax je tey bés à métti la ci les c'est vrai que comme nous le ko sur le plan politique on a toujours eu des divergences politiques mais le respect de grand frère a toujours été là parce que suñu papa nous ñoo doon Nous ñoo bokk benn koñ donc euh, papa ak son papa donne. c'est vrai que euh, personne, la perte la pour nous. mais politiquement, xam nga bon politiquement, c'est un combat d'idées des combats de principe c'est vrai que nous dinañu faral di réeroo ci bëri sur le plan des idées mais téréwul aussi respect buma ko jox en tant que mag parce que li ñi xamné ne li ma bokk ak mom ci ci deret mo gëna a fort que politique bi parce que ñu bokk ben koñ suñu papa yi ànd man ak ñu rem bo demee kër ga suma turoon nga fa lépp donc pour dire que tay euh, vraiment métti la am métti métti mais jullit lañu di ko ñaanal yalla yaara xii du ko àjjana yàlla jégal ko ay baaram ay bakkaaram taxawu njabootam bés bu tiis la si ñun tiis la parce que perte bu mag la ci parti socialiste perte bu mag la ci Sénégal aussi mais di ñuy wax daal ci moment yi moom moment yu douloureux la parce que ni mu demee gaaw na bett na ñëpp suñu gorom bu soxlaa moom kenn du xëccoog moom loolu moo tax tey daal ñu ngi yeesal suñu njaal à toute la famille parce que tey man mun naa ne sax suma suma famille man maa am dëj parce que tey xam naa boo demee koñ ba tey kenn desul tey su ma su ma ko jot mayoon tey dinaa ànd ak corps bi dem Sénégal pour wax la rek suma divergence ak moom laa toujours été une divergence d'idées et de principe mais teewul aussi mag la ci man mag la ci man mu ñu mos a ñëw réunion sax loolu lay wax mag la te maa ngi sama mujj sama mujj gisante ak moom coïncidence par coïncidence man moo ak Khalifa Sall toogoon Khalifa Sall ci japp ma suñu loxo ne sam Khalifa Tanor sa mag la wutuma dégg divergence seen seen seen depuis lors ci ñu bëne nekk di dégg pour wax la ne tey vraiment Khalifa Sall moom tey li ma mun a wax mooy amul lu ko gën a metti ci bés bu bés bi tey parce que xam naa bi ma ko mujjee setti prison fi mu doon wax ci parti social mu doon wax ci Ousmane Tanor rek ñëpp koo wax mu ne la suma camarade la bàyyi leen Tanor suñu mag la tu vois donc xam naa ne